Bon, je pense que c'est une suite euh, logique. Comme on le dit, euh, on ne peut pas avoir toute une génération euh, qui rêve de devenir coach. Il y aura des coachs, il y aura des dirigeants, il y aura, je sais pas, des médecins et autres. Donc, euh, et pour moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est une continuité, parce qu'avant nous, il y, en a, il y avait d'autres qui ont écrit la page du football sénégalais. On a appris d'eux, de nos grands frères, qui nous ont accompagnés. Donc, euh, Comme on dit, les générations datent de plus loin. Donc on peut parler d'Asmara, tous ces gens, euh, tous ces grands messieurs comme Feu El Malik Sissouri et tous ceux qui sont partis, qui nous ont inculqué cette culture de la gagne. Donc euh, aujourd'hui, ça ne nous surprend pas que cette génération qui a vraiment eu euh, à, à avoir cette culture de la gagne à, à la transmettre aux nouvelles générations. Alors, e, Sénégal euh, sur le toit de l'Afrique, avec les consécrations de la Cannes, le Chan et du but soccer, euh, quelle analyse en très très très positive et encore, je dirais, positive et avec une très grande fierté. Parce que comme on dit, ce sont des coachs nationaux qui sont là, qui ont prouvé que c'était possible, qu'on était capable Et que pour nous, en tout cas, c'est une très grande fierté de, de, voir ce sont des coachs locaux qui, qui, sont là, qui ont joué au plus haut niveau, qui aujourd'hui sont en train de transmettre et de transmettre cette, euh, cette, euh, cette mentalité de la gagne euh, aux différentes sélections de l'équipe nationale. Alors, euh, sur, la, sur, la, sur la cérémonie d'aujourd'hui bah, Je dirais, aujourd'hui, c'est un honneur, une très grande fierté d'être là. Euh, d'honorer de notre présence euh, la mémoire de Pape Bouba Diop dans ce musée euh, vraiment extraordinaire et euh, qui permettra à des millions de, de, jeunes Sénégalais, de jeunes supporters qui viendront dans ce stade, de touristes qui viendront dans ce stade, euh, honorer la mémoire de Pape Bouba Diop et d'apprendre qui était l'homme qui était euh, Pape Bouba Diop, qu'est-ce qu'il a fait pour euh, le Sénégal. Et pour nous honorer Pape Bouba Diop, c'est honorer toute la génération 2002 et les autres générations qui sont derrière. Quels ont été vos rapports personnels Vous deux, euh, vous et Pape Bouba Diop Rapport personnel, je dirais, c'était vraiment un ami. C'était un ami. Euh, les souvenirs que j'ai de lui, euh, comme je dirais, partenaire de guerre aussi. Comme je le disais tout à l'heure, on, on, on se comprenait tellement qu'on n'avait pas besoin de parler. Avec les yeux, on se regardait, chacun savait ce que l'autre voulait dire. Et comme je disais tout à l'heure, souvent, quand il y avait euh, les vérifications des passeports, par exemple, euh, au niveau des, euh, de l'équipe adverse, on n'envoyait pas Bouba Diop, quoi, parce que c'était une armoire à glace. Déjà, il partait torse nu, ça impressionnait déjà l'adversaire. Et, et, ce qui était marrant, c'était, comme on dit, une armoire à glace, mais qui avait un visage d'enfant. Et souvent, avant de sortir, on lui disait, écoute, ne va pas sourire là-bas, quoi. Fais, fais, le gars fâché, montre un visage euh, de lion qui est prêt à aller croquer. Et, et c'était un contraste, quoi, qui était quand même fabuleux. Et quand il partait avec euh, Ferdinand et Aliou euh, dans le vestiaire adverse avant le match, je crois que l'adversaire était déjà à moitié. Bon, j'ai pas envie de jouer contre ces gars-là, quoi. Donc c'est une anecdote. Euh, et, mais Comme on dit, c'était, il avait un cœur euh, énorme. Il avait un cœur énorme, toujours souriant. Vraiment, ce sont ces souvenirs que j'ai de lui. Un bon vivant, euh, très calme, les pieds sur terre. Et euh, voilà, un grand monsieur, un grand monsieur. Mais, mais autre, autre, chose rien à avec cette cérémonie, euh, Salif vous êtes euh, dans quoi Il y savoir euh, où, est, passé Salif Diao reconversion je suis à la retraite, comme on dit. Je suis à la retraite footballistique, mais comme on dit, euh, le football reste une parenthèse, euh, dans notre vie. Et, la reconversion, donc on dit des business qu'on gère, donc le foot, le foot c'est, je dirais, c'est une parenthèse dans ma vie. Aujourd'hui, euh, donc, je suis reconverti dans, dans plusieurs euh, domaines, donc notamment dans, dans, le sport, dans tout ce qui est infrastructure sportive. Donc, euh, j'ai une société qui euh, euh, qui construit des infrastructures sportives et je représente beaucoup de multinationales internationales ici au Sénégal et en, et en Afrique. Donc, on fait de notre mieux. On essaie d'amener les meilleurs au Sénégal. Donc euh, on a beaucoup voyagé. On a des possibilités euh, de faire venir ce qui se fait de mieux ailleurs. Donc euh, c'est de le faire pour notre nation. Quoi. Et c'est pour cette raison, je dis tout le temps, euh, notre Sénégal, c'est à nous de le construire. Et, euh, et que j'encourage tous les jeunes Sénégalais expatriés qui sont, qui sont partis à revenir construire ce pays. Parce que si nous, on ne le fait pas, ben, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui construira. Et aujourd'hui, c'est un devoir pour nous de rentrer, de s'impliquer euh, dans la vie euh, et dans la construction de, du Sénégal et de l'Afrique. Comme vous dites, euh, même si on ne nous voit pas, je pense que les gens qui bossent, on n'a pas le temps de parler et, euh, ni de se montrer. Donc on essaie de faire de notre mieux. Alors vous savez, en tant qu'ancien euh, footballeur de Liverpool, votre club est mal en point en ce moment. Et selon certains observateurs, c'est lié à l'absence de Sadio Mané. Êtes-vous d'avis Mon cher ami, je ne pourrais répondre à cette question parce que le sujet aujourd'hui, c'est pas Bouba Diop et ce beau musée. À une autre occasion. Euh, vous étiez ami à, à Pabou Diop, mm. euh, cela euh, vos enfants Non, c'est extraordinaire, euh, et c'est la première fois qu'ils se, qu se je dirais. Voilà, c'est la première fois qu'elles se voient. Euh, et, c'est comme on dit, c'est la, la vie est fabuleuse. Donc euh, c'est génial. Depuis tout à l'heure, on les observe. Mais c'est beau, c'est beau à Aujourd'hui. Vous rappelez de, de, de certains moments avec Regardez comme regardez. Ouais. Celui qui vient de se voir. Ouais, ouais. Non, c'est comme, euh, comme je dis, c'est une complicité, c'est une complicité qui est, qui est, géniale. Et pour nous, en tant que partenaire, comme je dis, c'était un partenaire euh, de guerre. On allait au combat. Quand il était à mes côtés, je, voilà, je pouvais aller tranquille, sans réfléchir, parce que euh, je pouvais lui faire confiance à 100% et lui aussi il pouvait me faire confiance à 100%. Et je pense que c'est cette complicité qui a, qui a fait la force euh, de cette génération 2002.